dinañu taxaw nii ñu taxawee yokkat taxawaay bi sax ngir ndox yi moom ci lu gën a gaaw ñu génnee ko ci gox bi suñu ko génnee ba pare it waa santé war nañu def action bu mag muy service nationale de l'hygiène ngir ñu mën a pomper ba nga xam ne benn feebar du mën a jógee ci ndox yi le ñaareel bi itam dinañu jàppale jàppale bi sax tàmbali na ndax yaakaar naa démb commencé nañu fay liste yi nga xam ne mu ngi jóge su ci supervision su préfet yi préfet ak gouverneur et ci ndigalu gouverneur ak ministre de l'intérieur ak ministre li nga xam ne moo yor solidarité tàmbali nañu def virement euh, jëmale ko si njaboot gi mais aussi war leen jox yeneen i ndimbal waaye ginnaaw ndimbal yooyu nga xam ne lu teew la nii li ma leen di indil ci xibaar yu bees mooy fas yéene na ñu tàmbali programme assainissement bu bees bu am am am solo boo xam ne dana nekk sax Sénégal yëpp waaye li ñuy wax épicentre bi li ëpp ëpp solo dañ koy tàmbale fii ci Kër Massar programme boobu projet projet si la bokk ak waa banque mondiale waxtaan nañ si ba pare lu toll si fanweeri milliards mu ngi si dana laal quartier yu bare bare maa yor sama téléphone fii waaye du aajuma si ñëwaat mais daal gox bi di unité 3 Camille Basse jëm yeneen unité yi Alaaji Paate ak li ko wër fi ba Kër Mas fi ba euh, Malika fi ba ma ngay dem jaxaay programme yooyu yëpp danañ ko tàmbali dekk taw bi dekk nawet bi jeex lu am solo la kon dinañu fexe ba lii ñu engagé ko mu am solo programme national la nag kon du gox bi rek parce que am na yeneen gox yu am jafe-jafe yoo xam ne xëy na jotuma ko yegg waaye nañu xam ne programme bi programme national la ONAS dina ci liggéey bu baax baax ak euh, yeneen kuréel yi su ko defee fii ak mois d' octobre ñu pare lépp luy préparation ak budget yi pour que ñu tàmbali liggéey bi ñaareelu mbir bi ma leen bëggoon wax tey mooy Kër Massar xam naa jafe yi fi nekk d'abord mbooloo mi fi mu fi yeewoo bés bu ne muy population densité population bi mooy doomu aadama yi yeewu si kilomètre carré bu ne nekk na lu jéggi dayoo boo koy comparé li des ci biir Sénégal wala ci àdduna bi kon nag Kër Massar laaj na ma ma taxawu ko taxawu bu bees ñu def ko département